rythme transit rythme transit moo ñaanal mboolem ay client am màggalug jàmm rythme transit 77 303 71 72 wala nga woo ko ci fixe 33 846 35 rythme transit mattali naxwi xaadirum muridu Kaya yawa. Ang mami yawa. Ne mam tere jour magal. Waaw. Bëtte bi la de. Bëtte bi tey la. Waaw. Ñu rek. Bëggal sëñ bi. bëggal bopp. bëggal mbokku taalibe yi. Ah, ci barke Cheikh incha allah. mais roi royal royal doy na waar. na waar mu ngi mel ne yéen a doon xaar pour ñu ubbi oh, yaa baax. ah. Mm-hmm. man xaritu journaliste yi ak ak ak ak animateur yi. ñu ne ubbi bu bëri. yéen yéen a tax. ah, ah kon nag toog jël si ah. ah lii mooy belel. fii belel la. belel sëñ Abdoulaat. dafa jëloon màggal gi naw ko lool am fu ko teg. ñu ñu bëgg jël màggal gi tàmbali ko ren. Mm-hmm. jëm déwén. Mm-hmm. fii loo yaakaar rek xeeboo ko xeebuñu xeebuñu gileem nawuñu ginaar lépp ciy dem lépp a ngi ci. waaw ah, parce que yow moom kenn dootuñu naatable sa diggante ak Serigne Touba kenn dootuñu naatable sa diggante ak ñi nga xamante ni waaw moo tax it tey fii nga xamante li ñu gis nii duñ ne duñ ne gulet. taalibe kese laa bëgg a doon waaw mën nañ ni safar gi saf na ci saf waaw. taalibe kese laa bëgg a doon man képp koo xamante ne xool naa sama diggante ak yow ngay xool ni sëñ bi. am na dara loo ciy sikki sàkk dootuñu dox mën a gën maître man sëñ Touba rek laa xam ba damaa judd doon murit màgg doon murit màgget doon murit bu ma deewee murit laay doon bu ma dekkee murit laa doon ëllëg yow mal xiyaam bu ma dekkee ba daw làqtu ci ginnaaw Cheikh Abdoulaye mhm. bu ma nee du wax du ma laaj kan nga mhm. ndax xam na ma waaye dama naan ko murit dong la Sadik Sadik laa bëgg a doon. Sadik nga. <laughs> jërëjëf jëfi jëfi Sadik laa. <laughs> macha allah waaw ba tey gis ngeen nga xamante ni noonu la def ci li nga xamante ni moom mooy jibi safar fallu fallu lii doy na waar. des fois ñu ne la ëpp na waar tool la. tool la dëgg la mais boo ko xoolee xam ni lu rafet la lu lu lu jaadu la nga xamante ni moom mooy jibi safar bi. dëgg la parce que nee na ñëw leen ma ki nga xamante ne mooy suñu borom. dëgg la départ bi nga xamante ne maa ngi doon def fii dëgg nañ ko li nga xamante ni moom mooy ci lii nga xamante ni tey départ la kon imagine leen tey bu fekkoon na nga xamante ni dañ koy def tertu kon boobaa ñuy demee parce que li nga xamante ni nga amaat ci terre bu ko dalee Eh, Déjame. Dudu. Mati, mati semua semua semua kermam. Bau. Mam, fu may kër maam démb ñëw nañ fi mu teral ñu defal ñu ay baax ñu jël ko interview moo tax man sama gars ñu ñëw waaw kenn du yow non non loolu liggéey la kenn du yow Fallou moom moom moom Sénégal 7 Fallou moom moom Sénégal 7 waaw ñi nga xamante ne ñoo fi ñuy siiwal ci à travers idée ñu leen neexul ak ñi ko média fi ñëw naataal bi ñu àndal tey di soo moo taal oto indi ñu ah, dugal ñu jox jox neex ni allah ñu la ci remercier di nuyu sama copain Waly. Mhm. waaw mais ba tey léegi ñu gis nga xamante ni moom moo am fii ci Belel. kër suñu maam maam ah, Diarra Fam. waaw waaw mais waaw tamit gis nga tey nga xamante ni moom la ñu fekk ci kër suñu yaay maam Diarra Fam. mu nekk lu rafet loo xamante ni euh, kenn dootu ko naatale ci yoonu murit gis nga ñëw nañu accueillir nañu ñëw nañu mu waxtaan ak ñun ne ñu man samay xarit ngeen yéen journaliste yi waaw dafa mel ne yéen la ñu doon xaar pour ñu commencé li nga xamante ni moom mooy gise bi ah tey ñii rek la mën a demee parce que mhm. a murit mhm. murit teraanga murit

loolu <laughs> sama yaay ni koy daggee. comme ni si gan li muy def nii. waaw xam nga rek. ah Amar italien bu ndaw laa. bu ah. xam nga kon ñu def nii daal di jokkati tuuti daal leen di bàyyi ngeen ñëw ah. Hah, xar bi moo ngi mel ni daf may wax ni ma bul ma njëkk a dagg de mais dinaa la hah? a ay ca bisimilah ñu dem laal ci tax la ah lii ñu def góosu nag. ayca bisimilah. ku may njëkk a servi. bisimilah awa. premier plat. ayca bisimilah. mère baa ngi noonu. merci beaucoup à vous. merci beaucoup. Rythme Transit Rythme Transit moo ñaanal mboolem ay client am màggalub jàmm Rythme Transit 77 303 71 72 wala nga woo ko ci fixe 33 846 35 Rythme Transit.